Baye Djily maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay di la delloo ziar bu baax a baax a baax a baax. baal euh, fàttali ma ci ban rôle nga yor wala ban poste nga yor ci ñu ko xamul écurie Mor Fadam. waaw écurie Mor Fadam je suis général en plus j'étais le secretaire général loolu role boobu laa yor ci école de lutte Mor Fadam. xale yi actuellement ban taxawaay la am ci écurie bi niñ koy def niñ ko bëggee wala bokk. waaw xam nga comme saison ubbi na ñun suñu devoir les plus absolus mooy xamal leen ni saison ubbi na ñëw leen entraîner ñu ngi ci seen i entraînement ñu ngi leen di décrocher ay combat li gën a jafe mooy entraîner te amoo combat mais ñoom ñu ngi entraîner ñu ngi ay am ay combat seen directeur technique mu ngi nii toog ici présent xam naa moom moom mooy gën a sax habilité à wax ci form booy fu mu toll ainsi de suite mais daal. ñu ngi koy defee daal dans les règles de l'art yëpp ngi tegu ci yoon daal waaw ñu ngi entraîné ñu ngi am ay combat. mbër yëpp ngi ñëw actuellement. waaw actuellement ñoom ñëpp ngi ñëw ah. kenn manqué wu. non non non bëgg compétir te nekk ci làmb actuellement nag renouveler seen i licence mais ñooñu ils sont obligés de venir parce que ñu ngi ci saison bi fi mu toll ñëpp ñu ngi ñëw à l'entraînement. kon dañ doon dégg ay ñol-ñol yu am ci diggante mbër yi nga xamante ne ñoo nekk équipe Mor Fadam seen biir euh, ñol-ñol yooyu fu mu toll. waaw xam je suis responsable du ma gérer détail quoi xam nga animosité foo dem am na fa groupe goo dajale dina am ay nit ñoo xam ni ay incom du doo leen mën a comprendre xam la mais ñun suñu rôle ak sunu devoir mooy jëm leen a maîtriser ba du am yenn det problème yi quoi problème majeur yi du fa am daal l' essentiel ñoom nag ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ils s'entraînent ensemble ku am combat ñëpp parce que nag foog ñu tegu ci texte ak réglement parce que école bi dañ koo créer ci discipline créer ko ci ay texte ak ay règlement xam nga école bu structuré noonu boo débordé wala nga def loo wër def day am lu la cay xaar loo tax man vraiment gisaguma désordre boobu gisaguma ko quoi yooyu pour man détail la quoi. mais xale yi di ngeen bëgg ñu ñu mel ko ñëpp ñu ngi koy mel ñu ngi ñëw entraînement à temps réel. forcément loolu moom mënul ñàkk ñu ngi ñëw entraînement ak temps réel. te ñun du ñu du ma man maay renouveler licence du ma licence quelqu'un que j'ai pas vu bala ma renouveler sa licence da ngay nekk en règle di ñëw di entraîner nu man la décrocher un combat xam ne yow téye en règle ma soo ko mën a renouveler sa licence mais du ma renouveler licence mbër boo xam ne tu ne pas en règle ñëw entraînement. waaye contra dafa xew guy gi yéen a ngi waaj jox ko beneen contrat bu mu jël beneen adversaire wala da ngeen di bàyyi mu génn ci rëg comme dafa xew aussi ñun duñ dem dans dans ci pëccëxoo noonu quoi parce que cumul de contrat xew na mais daf ci am ñoo xam ni par exemple ñu ngi cumuler ay contrat mais duñu maîtriser ce qui se passe dans les contrat man je suis un boo xam ne le président peut m'en témoigner su ma toogee devant un avocat bu nu ma joxee un contrat dama koy parcourir parfait ko xool les tenants les aboutissants li ca baaxul dañ koy dindi teg de côté liñ ci arrangé wul kon moom bu demee ba nangoo jël loolu rek ñu ko yor ko xam nañ fi ñu teg seen tànk côté boobu loolu amul benn problème waaw. jërëjëf Baye Djily maa ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi lay ziar bu baax di la sant yow tamit di la gërëm merci beaucoup.